13 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu nee góor ngóoraa tax. rafetlu ànd bi ak yéen ci Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen a jàmm ci biir jotaayu xibaar ne suuti ñu faram fàccee. l'information à sa juste valeur, c'est ici même Sunugal dañu koy dooreeg feetuk Noël yenn chrétiens yi d'accordoon ànd ak gouvernement bu Sénégal ci arrêté bi ci lu ñeel wàllum rassemblement ñenn ñi d'accorduñu woon ba na ngiitum réewum Sénégal dal dinay def li nga xam ne moo di waxtaan ak gouvernement bu Sénégal rawatina ki ñu dénk biir réew mi di Antoine Félix Diome ngir ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo di chrétiens yi ñu amal seenug feet ginnaaw bu ñu jàppee woon yëf ya dafa am kumba am ndey kumba amul ndax bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ñenn ñi nga xam ne jot nañ leen dékk ay micro ci mbedd yi xamle mooy màggal jàll na fi gàmmu jàll fi te itam bàyyi woon nañ leen ñu amal seeni feet te benn bés bii rek la ñu am mu di juddug Jésus ñu waroon koo màggal ñu doon am yaakaar ne dañ leen di tere googule feet mujjee nañu leen a bàyyi ci euh, li nga xam ne moom moo di seen feetu Noël yi ngir ñu amal ko euh, ca façon ya ñu ko doon amale waaye mu xaw a wuute ndax dañuy daal di respecté li nga xam ne moo di mesure barrière yi ñeneen ñi doon xeex démb seen ak ak yelleef ca place de di artistes ñi nga xam ne ñoom ñoo di mu mel ni daal dañuy fay gis euh, ca moomu leen ndaje yenn artistes yoo xam ne kenn tegu fay gët bokk na ci Youssou Ndour mi nga xam ne ne woon na loxoom a ngi ci biir te itam dina soutenir artistes yi euh, Viviane Chidid Ndour ak ki nga xam ne moom moo di Wally Seck Pape Diouf ñeenti nit yooyu nga xam ne ay nit lañ ñu ñëpp ràññee ci musique bu Sénégal ba tey dañuy des ci artistes yi seenum ndaje démb yëf ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi ci bulle culture bi artistes yi waykat yi ñi nga xam ne tëggkat yi ba ci sax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci eh, lii di boîte yi maanaam musiciens yi daal dinañu fay teew ngir nag xeex seen ak ak seen yelleef ñu dal di fay dégg yenn kàddu yi nga xam ne bokk na ci waykat bii di El kayta Keita nee ñi nga xam ne ñëwuñu ci moomu leen daje maanaam artistes yi nga xam ne xam nañ leen ci biir réew mi te ñëwuñu mën nañ leen jàppe ay fekk ñu dem ca Diourbel dafa xew am ndaje moo xam ne benn quartier ñoo doon def ab fuural daal di nag mujje andi jëye ba a ginnaaw bu police defee descente ndax amuñu autorisation te itam jamono ji nga xam ne dañoo tere lépp loo xam ne ay xumbaay la ak ndaje ñoom amuñu autorisation ngir amal seenu organisation ci la fa police defee descente ñu dal di mujjee jël ay xeex di ko sànni policier ba boom am ci gaañu gaañu yu métti ca bopp ba waaye ca ñi nga xam ne ñoo organisé boobu lee xumbal daal dinañ cay teg juróom benn nit loxo bokk na ci ku ko organisé ba tey ñu des ci mbiru policier yi bu fekkee ne itam am na ku ñu gaañ ca Jurbel am na beneen policière boo xam ne Euh, daal dinay jàpp benn chauffeur maltraité ko bu ñu sukkandikoo ci image yi ñu jot a gis te ñu commencé ko euh, partagé ci réseaux sociaux yi policière ba ak lu mën a séq ak chauffeur ba moom daal ni na koy euh, jël loxo ba mel ni lu ko xoj ci baat bi ba pare jël beneen loxo bi taf ci gémmiñ gi te koy dóor ñu sukkandiko ci yenn commentaire yoo xam ne moom policière bi mi ngi koy def naan chauffeur bi dafa réew ñu wax ci diggante war yi ak banque bi di Cori banque seen diggante sagar lakk na ca ba ndax banque bi di Cori dégager lépp loo xam ne ay responsabilité fa seenee résilier ab contrat am digganteem ak wari kañu ko xamal di euh, opé di libération online nee na Cory Bank jël na décision te itam daal dinay dakkal lépp loo xam ne euh, digganteem la ak wari lu ci nekkoon responsabilité am dégagé na ko te itam la waral seen coow ñoom ñaar fësaluñu ko waaye lu ci mën a am moom Cory Bank nee na digganteem ak wari euh, jeex na ñu wax ci langue politique Guy Marius ak plateforme Multilutte doy na bi daal dinay recevoir recevoir keneen ginnaaw bu mu recevoir woon ki nga xam ne moom moo di fondateur bu Manko taxawu Sénégal suñu APR di Moustapha Diakhaté fan yële ñu génn dal dinay dalalaat keneen mu di ancien maire bu Ndakaaru di Khalifa Babacar Sall démb ànd ak ab délégation bokk na ci ki nga xam ne moom moo di maire bu maire mu Sacré-Cœur Barthélémy Diaz ak ki nga xam ne moom moo di conseil politique am di Moussa Faye ca moomu leen daje nag jàpp nañu ne ki nga xam ne moom moo di Khalifa Babacar Sall ak pat pataral mu nekkee woon depuis mu génn kaso Euh, ki nga xam ne moo di muy Guy Marius Sagna ak seen ndajeem démb yi ak kàddu yi ñu fa yëkkati jàpp nañ ne Khalifa Babacar Sall dina déconfiné wu. ñu wax ci na ak tiis wi nga xam ne gouvernement bu Sénégal dal dina koy xëyee tey ñakk nit boo xam ne ku ñëpp ràññee woon na ci biir réew mi ak liggéey bi nga xam ne doon na ko liggéey ci gouvernement bu Sénégal mu di secrétaire général du ministre de l'économie et du plan di Pierre Ndiaye dal dinay génn àdduna démb ci guddi bi 20 di jot la ñu jot a yóbbu ginnaaw bu ñu ko hospitalisé woon fa nga xam ne moo di hôpital principal bu ndakaaru ci fan yi ñu génn coowal flash mi ngi mel ni tuleeg màlle ci biir réew mi ñu daal di koy nemmeeku ci yenn école yi mu di li nga xam ne ni dañu koy tasaare yenn photo yi yenn vidéo élèves yi nga xam ne ñi ngi koy def ak secret yi nga xam ne moo am ci yenn établissement yi bokk na ci flash yi nga xam ne jot nañu ko fësal jamono ji mu di flash cas bu lycée Limamoulaye flash Saint-Michel ak flash ak demi Dieng da ak yeneen lycée yoo xamante ne ni jot nañoo fësal seeni i flash euh, bokk na ci li nga xamante ne ni lu ñëpp ñaawlu la tax euh, ministre de l'éducation bu Sénégal dal di réagir ci li nga xam ne mi ngi jot am ci yenn établissement yi nee na képp koo xam ne euh, jàpp nañu la ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw flash yooyu di def publication yi mën a yàq élèves yi mën a yàqale itam yenn établissement yi dinañ tekk daañu metti ci sa kaw ba tey ñu des ci mbiru Flash ka ñenn jàpp ne série bu Marodi bi di Virginie tamit daw ca TFM moo daal di indi li nga xam ne moom moo di inspiration yenn élèves yi ngir nag ñu mën a def itam ñoom seeni i ci yenn élèves yi ndax bu ñu gisee ñenn ñi dañoo jàpp ne Virginie deful lu dul yàq élèves yi influencé leen ci wàllum élève buy jàng war a yor oto wala nekk ci yenn condition yu baax yi rawatina itam yenn élèves yi nga xam ne amuñu yenn moyens da leen di pousser ngir ñu defi wax ci leneen dem ca Ziguinchor ak ñaari homme de tenue yi nga xam ne tegoon nañu leen fa loxo mu di benn gendarme ak benn policier ci atum 2018 lañu leen di toppee association de malfaiteurs trafic intérieur ak li nga xam ne moo di détention ak usage de chanvre indien daal nañu leen di atte ci ëttu attekay kenn ku nekk ci ñoom ñaar daal nañu lay tëj fukki ati kaso ak lañu ñu ci seenum ndodd ñu wax ci mbiru Dame Amar ginnaaw bu ñu ko waree woon atte di mujje ak i gëtam ndax boobu ba léegi ñu ngi ko placé su mandat de dépôt ab avocat am daal dinay génn andiwaat ay leeral ne boobu le àtte mu jëw ñu ko amal dañ koo dàqaat ba le 31 janvier bi ñu dëkkmal moom nag avocat boobu lee nee na ba tey xamul lan moo waral juge bi nangoogul àtte ki nga xam ne moo di Dame Amar maître Ndeye Fatou Touré mi nga xam ne moo di avocat moo ñu indil yooyu lee leeral ñu wax ba tey li gën a fës ci yenn établissement yi ci biir réew mi yenn joote yi nga xam ne dañu ko fay nemmeeku léegi école yi yàqu na ba mel ni lu kenn xamul ñu dem ci groupe scolaire ñaare ba nga xam ne moo nekk ca Wakam benn élève boo xam ne ñaari professeur ñoo ko dal di violé maanaam la ca gën a fës bokk na ci élève bi ak viol yooyu da caa mujjee jëlee ab ëmb ginnaaw bu ko seen waa kër ji ñeewoon ba nga xam ne moom lay nekkal waaye copain ba jël na défense ba daal di miim defee seen i gëstu daal di mujjee avoué ñaari professeur am ñoo àgg ci moom ba mu daal di jële jëlee ëmb moom éléve boobu nee nañu fukki at ak juróom-ñaar la am ba ña nga xam ne ñoo def moomulee mbuxum jamono ji daal nañu leen di teg loxo ngir càmbar seeni mbir ñu àddu wax ci leneen lu mujjee doon sérieux ginnaaw bu ñu jàppee woon ne booba léegi yaay nit a ngi ciy wax te mënuñu ci am la ñu bëgg mu di presse en ligne bi nga xam ne daanaka yàqu na ak yenn image ak yenn ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi ko ciy faral di nemmeeku tax na njiitum réewum Sénégal ni mel ngir nag ñu daal di dakkal lépp loo xam ne xeeti ñaawteef la ñu koy def ci yenn réseaux sociaux yi te itam presse en ligne bi gën a wo ñoŋalaat seenub liggéey ngir ñu gën a euh, amal li nga xam ne moom moo di fësal suñu culture ci li nga xamante ne ni moom fi jot a xew fan yële ñu génn tax na ca conseil des ministres bi nga xam ne moo amoon démb daal dinay dànkaafu presse en ligne bi waaye itam wax ak ki nga xam ne moo di ministre bi ministre de la culture de la communication ci relation bi nga xam ñoom waaye ngeen ñu renforcer li nga xam ne moo di sensibilisation bi ak acteur de presse en ligne yi ngir nag ñu xoolaat liggéeyu presse en ligne bi ndax jàpp nañu ne jamono ji lépp dafa dal di euh, sooxe ñu dem ca Parcelles Assainies takk der yi dal di nañu fay teg loxo benn nappkat ak la ñu fekk ci moom moom H ñaa moomu ab nappkat la ci lu ñu ko waaye am na leneen lu mu doon mbubboo lu nekkoon ci ginnaawam lu muy jaay lu waraloon ñëpp am yaakaar ne day jaay li liggéey mayu ko woon peut situation bi mu nekk ginnaaw buñ ci defee ab gëstu bu yaatu moom Acheña moomu euh, ci la takk der yu Parcelles Assainies daal di koy tegee loxo fekk ci moom lu tolloog benn kilo yamba boo xamante ne ni am na ñeneen ñu ne ci ginnaawam fële nga xam ne moom moo di Nord Foire ca la ki koy fournir nekk moom itam dal dinañuy dem ngir nag euh, defab ab audit ci moom waaye ki nga xam ne moo di Acheña jamono ji mu ngi ci loxoy takk der yu Parcelles Assainies ngir ñu ñu dal di wax ci communiqué bu yees bi nga xam ne fësal na ko jëmale ko ci activité sportive yi ginnaaw bu ñu ko dakkalee te itam ñenn ñi commencé woon di def seenu manifestation wala def ay conférence de presse bokk na ci conférence de presse bi nga xam ne Boy Niang 2 amaloon na ko niki bërki démb te invité woon ci mbër yi nekk ci biir réew mi yëpp tax na ministre des sports di Matar Ba daal di convoqué ki nga xam ne moom moo jiite CNG léegi di Bira Sène ak ay équipe am ak ñi nga ne ñoo di promoteur lamb yi ngir ñu fas def ba amalaat làmb ji ak yenn activité sportive yi samedi bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ba 11h jotee. dañ koy jeexale ak point Covid 19 bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé et de l' action sociale amal tey ci alxames ji yem ak ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre lim ba am doomu jàngoro ji ba ngay gën a takku te itam di gën a tiital ñi nga xam ne ñoo nekkee ci wàllum santé nit ñay génn àdduna lim ba ngay gën a takku waaye tax na ñiy sàmmonteeg wér gu yaramu doomu aadama yi lëkkoo ceeg ministère la santé et de sociale eh, di sàkku ci askan wi ñu gën a wëyal digle yi bàyyi tere yi bokk na ci li nga xam ne moom moo di takk masque lazel moytu dajaloo bi te itam respecté li nga xam ne moo di dandante bi ngir ñu mën a xeex mbas mi mu génn ci réew bi yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon taaxi lu Sunugal 24 fii la ñuy yëkkate bi la jotaayu xibaar di ñaan ngeen woyee suñuy programme ñaanal leen kenn dalu jàmm di leen jox dig daje ci xibaaru ngoon gi incha allah. ku ne xam ne ni yàlla daa bind am na ñu matal am ñu matalewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur